daanaka amatuñu jafé jafé ci collecte des déchets mais dafa bëri li tubab di tuddee ay encombrants melni ay xeer wala ay déchets verts yu nekk ci koñi té bu yàggee nit ñi di romb di ci sanni ay mbuss dafa mujj nekk ay sëgu mbalit donc brigade bi liko ko tax a jug li nga xamni mo ci bees aussi moy ñom dañuy àndandoo lu nekk rek ben équipe wu ñaar wala ñetti personnes day nekk ben équipe wu cinquante personnes bo xamni day ñëw ci ben quartier waxuma ben commune d'arrondissement arrondissement mais benn quartier lay ñëw dugg fa investir ko régler problème bu quartier bi ba pas passer la main aux équipes traditionnelles donc ñom dañuy andando di liggéeyandoo leneen li ñu ci djublu aussi moy ñu mëna attirer mouvement associatif yi lu demee ni ASC yi gox yi aussi personnalités yi ak autorité yi nga xam dañ nekk ci quartier yi lañ leen inviter pour que ñom aussi ñom am forme d'engagement communautaire pour génn ànd ak équipe yooyu nga xam ni bu ñuy ñëw dañuy indalé sen équipement sen ay bac à ordure sen pelle seen i râteau seen brouette dugg ci kon bi andando liggéey ba buñ fay bu génn incha allah dina nekkat euh, à niveau

ci li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñoom moytandiku aussi yenn comportement yu bon yi di ñaan concitoyens yi ay ndox wala lii loolu yëpp dañ koy tere léegi euh, am seen fulla ak seen fayda sàmm seen liggéey sàmm seen tenue di ñëw heure di wàcc heure wax nañ leen aussi ni ñoom am nañu chance ndax am na ñoo xam ne yàgg nañu liggéey ci nettoiement te bu yàgg ba seen salaire yi demee wuloon noonu dañ doon am ay retard de paiement loolu yëpp aussi yàlla suñu borom dimbali nañu ci benen bi mooy at bi nga xam ni moom la ñu dugg ci société bi nekk na at bu jafe lool ci àdduna bi jafe aussi si réew mi mais fekk nañ fi ay acquis yoo xam ni ci mbaaxaayu président de la république Macky Sall mu jàllale ko ci suñu ministre de tutelle Abdoulaye Seydou Sow ci la ñu mënee am lool. mooy lu mel ni assurance maladie bi nga xam ne dugal nañ ko weer ci ginnaaw assurance boobu jàpp naa ni sax moo ëpp solo salaire ndax na permettre agent bu nekk nga mën a am carte d' assurance maladie ak assureur bu tudd Transvie di nga ci mën a faju mais di nga mën a dugal aussi cinq personnes ci sa biir njaboot loolu jàpp nañ ni moo ëpp solo sax salaire bi. ñaareel bi mooy gis ngeen aussi ni démb président de la république jox nañu benn assiette foncière bu cinq hectares bu nekk ci Thiès euh, ci Thiès waaw Mbour 4 mu doon lu am solo mu doon aussi loo xam ni. Euh, Nous avons nañ ni gulet ci wàllu nettoiement ñu ko koy santé bu baax di xamal xalé aussi ni lolu dañ ci privilégié ñi nga xamné ne dañoo ci les anciens du nettoyement, donc pratiquement sur 160 euh, parcelles 150 ñom ñoom leen ko jagle def ci nak une parité parfaite 75 hommes 75 femmes mu dess 10 10 yoyu dañ ko jël tassaré ko ci yenen segment wu société tambali ko ci xëyu ndawi yi ndawi même bu xamné amuñu un statut d'employé nekuñu ay CDI jël nañ ci ñaar ci ñi nga xam ñoo ci programme bi boole leen ci boole nañ ci volontaire du nettoiement yi nga xamni 2020 lañ leen commencé woon recruter ak aussi employé administratif de support yu melni chauffeur yi ak yoy pour woné dal ñepp ñi nga xamni ne bokk nañ ci UCG Sonaged ci mbir mi la ñu bokk maintenant il faut que nous a góorgóorlu rek yok suñu performance pour que mbir mi gëna a yaatu ñu gën ko wesaare fep ci Sénégal té ministre bi demb jox nañu nouvelle bu neex bobu mu président joxé na ndogal ni fep fo xam ni fa zone d'aménagement concerté ñu jox fa un minimum de 3 hectares aux agents du nettoiement lolu amna solo parce que japp nañ ni fay contribuer ci vision président de la République euh, ci li nga xam ni la le soutien aux couches les plus vulnérables ndax japp nañ ni bu ñuy programme bu melni 100000 logements nous nga xam ne ñoo nekk ci nettoiement nekk nañ ci cibles yi nga c'est des cibles prioritaires en raison de la précarité de leur salaire la faiblesse du salaire et aussi ñi ngi mais vraiment am nañ ci mbégte lool ndax mu ngi matal aussi dispositif yi nga mettre en place pour pouvoir protéger et développer davantage li le capital humain